ànd ak euh, coro ci actualité euh, bi nga xamante ne euh, comme niñ ko gisee point principal bi Covid 19 la ndaxte moom ça fait un an si yenn dëkk yi bi mu fa duggee ba léegi fu ci mel ni Italie nga xamante ne un an lañ noté woon cas yi nga xam ne moom moo njëkk am fële ca Codogno nekk premier foyer bu Covid ñu yaakaaroon ni fa la yem mu tas biir Italie jaxase Italie vraiment. effectivement jaxase Italie bu baax a baax a baax ndax Italie. mooy seet mooy deuxième pays bi nga xamante ne moom la coronavirus gënoon a sonnal euh, fi nga xamante ni nag moom moo di Côte d'Oignon euh, fa la coronavirus njëkk feeñ le 21 février 2020 euh, avant muy law fépp fi nga xamante ni moom moo di ca Italie donc ñoom tey bu ñu toogaatee defaat récap xoolaat fi nga xamante ne foofu la li feebar bi jot a yàq quand ak li mu leen indil ci ay loronge il faut dire que ay chiffres yu alarmant moom moo am fi nga xamante ni moom moo di euh, foofule ndax bu ñu fàttali euh, day il est important ñu fàttali ne foofule ca Codogno 15000 euh, habitants ñoom ñoo fa nekk te ñu am surmortalité bu toll ci 300 pour cent il faut quand même dire que dëkk ba li ñi fa feebar bi laaloon bëri na bu baax a baax a fi mu toll nii nag il est important. ñu wax ni naam euh, ay jéego am na bu baax ci recrudescence su cas yi ak yu mel noonu mais taxul ñoom ñu éradiquer à 100 pour cent coronavirus bi et c' est le cas par exemple dans beaucoup de pays du monde yi nga xamante ne euh, fépp la euh, pandémie bi daal di laal ñu wax ni nag ci un an bi 95 000 personnes ñoo décédé foofule ca Italie ci li nga xamante ne moom moo di Covid bi bijou ndax comme je l'ai dit tantôt Italie mooy deuxième pays bi nga xamante ni. ñoom la pandémie à coronavirus gënoon sonnal. ba pare Thioro ñoom j'ai l'impression qu'ils ont problème de gestion par rapport Covid bi y a des décisions yoo xam ne dañ koy jël tey suba ñu jël contraire u décision boobu ci toujours gestion wu Covid 19 bi euh, ba pare dañuy ñëw déclarer benn zone ne zone rouge la. Oh. bu subaa ñu ne orange na ginnaaw suba vert na nga jékki-jékki waat retourné waat zone rouge côté économie bi c'est très dur pour nit yi nekk foofu. Oh. Euh, aide yi nga xamante ne nit yi war nañ ko partager ba léegi yaa a problème ndax euh, nii nii ci biir Covid bi am nañu crise politique aussi lu kenn comprendrewul parce que on pense que nii nii concentré wu ci Covid bi mais foofu politique bee ngi jaxasoo euh, ku ci nekk bëgg a jël xaalis bi ut foo ko dugal donc c'est c'est c'est quand même grave li xew il faut dire que boo xamante ne yow la ñu wax ni yaay deuxième pays bi coronavirus bi gën a touché nga waroon xool noo ciy génnee mais dafa mel ni daal chaque jour day gën di jaxasoo. il faut dire que Covid bi dafa redistribuer waat carte yi à travers le monde parce que. Euh, quand la pandémie a commencé en Chine il y a un an euh, ñu bëri dañu foogoon ni xëj na bu ñëwee Afrique euh, ñun ñoo ciy gën a lorulee ñoo ci gën a sonn. parce que amuñu moyen parce que oui mais on a effectivement mais là on a vu que euh, li li li li Covid bi firndeel mooy que pays Afrique yi. ñoo gën a xëj na euh, maîtriser wala ñoo gën a am une bonne gestion de cette pandémie mm. euh, après nag xëj na li ko waral mën na mën na bëri mais dans un premier temps lecture boobu noonu la ñuy def euh, leneen li mooy comme ni nga ko waxee jàppoon nañ ne xëj na bu ñëwee Afrique ñëpp dee ñëpp sonn ñëpp contaminé ça n'a pas été le donc de la même manière tey dëkk yëpp dañuy tâtonner oui mais Italie comme tu l'as si bien dit ñoom seen tâtonnement dafa gënoon flagrant mm. en fait c'est vrai muy Afrique muy Europe muy Amérique amu ci kenn koo xamante ne quand tu prenais certaines décisions tu maîtrisais la maladie no tu maîtrisais non seulement pas la maladie euh, li nga doon def da ngay njortu ne rek euh, peut-être que c'était la meilleure manière de sauver tes populations mais su fekkee ni ñenn ñi bu ñu jëlee décision par exemple dañ ko essayer pérenniser euh, xool dans un dans un certain moment ana lan lay joxe tey bu ñu nee Sénégal ñu ngi couvre bu ñu évaluer dinañ ah couvre-feu la yokk wala lii la wàññi mais euh, wax nga ko sànq Italie tey da ngay gis ñu ñu ñu wax fii zone rouge demain cette même zone mooy vert en moins d'une semaine yenn saa yi doo comprendre euh, maintenant après il faut dire que ñu am Euh, tous les éléments de réponse euh, pour mën a xam ana lan moo waral loolu mais il faut dire que euh, coronavirus moom ñëpp dañ doon tâtonner après da ngay tâtonner dara làmb daj mu baax xëj na continuer saa nga làmb du doon foofu point positif bi mooy que ni actuellement commencé nañ seeni vaccin seen vaccin même bu fekkente ne dafa amoon ci corps médical bi ñoo xam ne dañu bañoon ne duñ vacciné finalement ñu ne dañuy vacciné bañ ñu jox ñi ñu njëkkoon a vacciné sénégalais yu bëri ñu ngi fa. Euh, itali ak Sénégal dafa mel ni ay pays yoo xamante ni pays jumeaux la. bokk na ci dëkk yi euh, ëpp li ñu recevoir ay bokk na ci dëkk yi ëpp. Euh, ay sénégalais ci moom bi corona bi eggee France ak Italie si ñu bëri ne dina bëri Sénégal ndaxte ñun dañu am collaboration boo <laughs> xamante ne dañ ko am diggante dëkk yooyu on espère que dina fa gaaw jóg ndax man mii di wax sama yaay ngi fa sama rax a ngi fa bon ay se sont fait vacciner heureusement mais quand lu fa xew dafay continuer di ñu tiital bu baax. Mm, effectivement. gën a fësal ci campagne de vaccination bi d'ailleurs euh, comme toujours ñun ni ñu ko defee rek toujours jox euh, ñi nga xamante ñoo war wax. ci oh. mbirum vaccination bi. Euh, ci mbirum vaccin bi gars yi muy ñoom professeur Seydi noonu la ko gouvernement bi doxalee c'est hyper important. parce que important suñu genre gi nga xamante ni dafay dañuy bañ. toujours dafa bari et xam na ñu ngi koy léegi ak nouveau média yi ñi ngi kafe yenn affaire yi duñu xam. naan Sénégal Ndiaye vaccin Ndiaye. ko amee suba jël de man. ñun amul problème de. mais amul benn

na wax ni ne sa vaccin baax ku am ah. euh, effet secondaire ñu ne la ñu ne la léegi bu mel ni dërëm ñëpp danañ am léegi yu toll nii. bu da nga ko doon gis si nit yi c'est vrai. voilà donc donc c'est pour juste pour montrer que ni bu ñu bàyyi ba 2021 ñu indi ay vaccin ñu naan la non ñun du ñu vacciné wu vaccin fi yàgg. génération bi la a accès à internet ku mu neex filmer sa bopp wax wax lu la sax sa yoon nekku ci doo mesurer conséquences yi yu solo yoo xamante ni Facebook jël na ko yeneen ak ainsi de suite ngi gën di law gis naa ni boo fi dugalee ay wax yi nga xamante ni amul benn rapport ci ci mbirum vaccin yeeg yooyu xamoo ci dara ci saa si dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay supprimer wala partage dañuy ah euh, éliminer sa vidéo loo tamit baax na ndaxte message yi ñuy joxe fi jamono toll moom fi mu ne nii il faut ñu segg yenn affaire yi il faut nga protéger ko contre boppam dëgg la foofu lañ toll c'est hyper important. il faut nga protéger ko contre boppam ndax dina def loo xamante ne moom sax du am conscience. si li liberté lan la liberté ok mais euh, yenn conséquences lay am il faut ñu mesurer ko aussi en tout cas euh, coronavirus bi mi ngi continuer euh, di def liggéeyam xaw ma liggéey la xaw ma nu mu ko mën a tuddee. en tout cas <laughs> man ay dégâts man jaaxal na ma trop feebar bu mel nii man dans mes pires cauchemars mënu ma woon imaginer que àdduna bi dinañ toll fii ñu toll nii coro ñu def point Covid bi fële ca effectivement Nice ñoom tamit ay série de décisions euh, la ñuy jël boobu ak léegi on attend d'autres décisions peut-être euh, tey ci euh, journée bi ci ni nga ko waxee parce que ñoom ñi ngi wax ndax dañuy renforcer couvre-feu bi ndax dañuy dem ci confinement par week-end en tout cas réponse yi dinañ ko am peut-être ci courant wu journée tey bi mais il faut dire que ñoom itamit ci beneen tournant la ñu nekk ci li nga xamante ne moom moo di cette pandémie à coronavirus ndax li nga xamante ne moom moo di épidémie bi daf leen sonnaloon bu baax a baax toll nii ak euh, souche bu bees bi ñuy wax nii dafa gën a am doole gën a virulente ñoom li ñu bëgg rek mooy euh, gën a xool ana naka la ñuy euh, saytoo ba li nga xamante ne moom moo di euh, Covid bi euh, mën a euh, dellu ginnaaw ñu wax ni nag foofu la ca Nice par exemple taux bi dafay gën di yokk plus de 700 cas positifs mën nañ ko compter par jour donc loolu itamit lu metti la ci ñoom donc gis nga dëkk yi neex yëpp fi mu nekk nii Covid bi xoolul mhm. fu neex ak fu naqari dëkk yëpp tey ñoo am jafe-jafe ba nga xamante ni ku ci nekk rek comme on le disait tout à l'heure dañuy xool yan série de décision la ñuy xalaat buñ ko jëlee mu nekk yi meilleur pour euh, non seulement éradiquer euh, la maladie sauver les populations mais également sauver l'économie de tous les pays parce que euh, fi mu toll nii dëkk yi non seulement dañuy xeex ak feebar bi mais dañuy xool naka la ñuy def ba redresser économie yi parce que nit ñi boo leen toogloowee di nga xool naka la ñuy def ba ñu mën ci génn nit ñi am lu ñu lekk nit ñi am lu ñu naan et tout ça dafay laaj ay koppar donc ne serait-ce pour ça dëkk yëpp ils ont besoin de sauver li nga xamante ne moom moo di seen ay économie donc euh, décision yu bees yi euh, ñi ngi koy xaar peut-être ci courant wu euh, journée tey bi ngir rek ñu mën a xam fan la ñuy mujjee mais en tout cas li autorité yi waxagum mooy ni que la tendance elle est pas du tout bonne donc ñoom il faut ñu jël lépp loo xamante ne série de mesures la pour mën a sauver bu baax dëkk bi surtout cas yi nga xamante ne day gën di élever foofu ca Nice. ba pare renforcement du couvre-feu peut-être dina am quelque chose de bien ndax boo

c'est pour dire que ñoom ci la ñuy profité génn dajaloo jaxasoo dañuy raakaaju bu ko defee ñëpp chipendoo virus bi en même dëkk ba dafa neex neex dëkk bu neex la dëkk bu neex la moo tax boo tëjoo semaine bi yëpp nekk couvre-feu bu weekend bi jotee danga naan naa profité toj fi. moo taxit 22000 contamination lañu lañu lañu lañu am. ñu ngi France ñu ngi doon wàcc. ci yi du France rek en Europe en général. Euh, ba yenn statisticiens yi génnewun chiffres yi expliqué euh, lan moo waraloon wàcc bi ak surtout euh, vaccin yi tamit effet bi mu commencé def parce que ñu ngi commencé tamit di di évaluer xool tuuti. mais xam nga toujours affaire yi du ñu ko maîtriser à 100 pour cent donc évolution la ci yëpp boo xoolee mois de mars depuis en Afrique Euh, wala au Sénégal mais avant bi mu commencé dugg ci pays européen ba ni mu yegsee nii euh, toujours affaire yi day évoluer nit ñi sànq yéen a ngi koy wax da ngay jógee ci étape bi ñu jàll ci leneen jël jógee ci étape bi jàll ci leneen. et puis relâchement yi c'est partout. Euh, nice par exemple week bi verbalisation la ñu am. Oh. ci non respect du couvre-feu. c'est pour dire yëfu nit la en fait amul tubaab amul chinois amul sénégalais nit ñi dañu sonnoo en fait. c'est humain dama doon seetaan benn reportage boo xamante ne benn xale bu jigéen Uber la yor day daw guddi gi. Euh, bi ko journaliste bi filmé am na six personnes yoo xam six courses yoo xam ne jël na ko ay nit yu doon jéem a dem feet barrage police bi leen dëpp ay nit yoo xamante ne dañuy brave euh, couvre-feu bi interdiction de sortie bi bi ñu leen laajee ñu ne bu ñu leen jàppee ils assume assumer et payer ah oui mais parce que dañu sonn am fu ñu ne parce que weekend bi aussi maa ngi doon. non ci kër yi en fait ah, di organiser ci ah, kër te yooyu ah. boo demee ci la contamination bi di ëpp. waaw fan la jóge fan la jaar ngeen contaminé wante Covid bi gën continuer di parce que man si weekend bi maa ngi leen dégg aussi ñu naan Marseille ñu ngi xoolaat ba xam duñ ko dugalaat couvre-feu. parce que seen taux de contamination dafa multiplié par 4 par rapport à taux national bi. donc je me dis après c'est un ras-le-bol général. les gens ils sont fatigués. Ah. j'espère que vaccin bi dina def effet. moo ci mën a régler ñu ñu vaccin wu vaccin Ndiaye moom na egg si mm-hmm. comme Ndiaye lañ ko sant na Ndiaye ni njëkk a vacciné wu. <laughs> ñun ñoo ñun pare nañ. Mm-hmm. pour dem ñu vacciné Sénégal mi ngi dugg ci mi ngi ñu ngi koy yóbbu ci région yi. ñu ngi koy yóbbu ci région parce que domaine lañu war a commencer. mais beneen bi ma rey mooy tam photo président de la république bi ñu ñëw taalal saako ceeb bi ne ku lekkoon ci ceeb bi di nga vacciné. loolu mooy ñun ñëpp a ci nekk ñun ñëpp a lekk ñun ñëpp a vacciné ñoo ko ci nekk donc. mais loolu dama xam nga gars dañoo dañuy. waa ji da fekk ma liggéey. <laughs> xam nga gars yi dañuy jël dañuy jël internet di ko tooñante di ko. mais parfois dina dina baax parce que. ñi dina xaw a stressé nga xamante mooy toujours ci communication bi nga xamante ni jël exemple toujours waa sama ñoom yaay rek mais ñoom ñu leen mais yaakaar duñu xam ni que c'est de l'humour aussi dina am ñu ko mais dafa am ñoo xamante ne amuñu sens de l'humour luñu gis bi ceeb bi moom toute façon loo ñàkk a am sens de l'humour xam nga ni lekk nga ceeb Sénégal étranger sa lekk nañ ceeb masamaay na sénégalais ceeb bi moom vacciné tout le vacciner dañuy tooñante xam nga parfois ngay gis parfois ñu frustré wu génn daaneel way gis nañ ay vidéo yi ñuy partagé naan ñii di ñàkku ñii di daw ñooy dañuy tooñ dañuy tooñ rek c'est parce que fi contexte bi toll la fi kii toll mais ñun ñëpp xam nañ ni communication bi ñu war a defandoo ensemble mm. mooy ñun ñëpp ñu gën a mën a sensibiliser xool ban méthode lañ war a mën a jaar ba nit ñi xam ni vaccin yi ay ñu ko pour ay tooñante defuñu ko pour ay euh, lu sérieux la quoi mm. c'est juste defuñu ko pour wax ni lii lu bon wala jublu ci lu bon kenn amul intérêt wu faat sa population ce matin Diouf Sarr mi ngi naan maa ngi gis ci journaux yi Diouf naan euh, ku ko bëgg balaa 2022 dinañ la vacciner ma ne ko 2022. sori na ñun vacciner man nañ la vacciner suba. ñun daal kii nañ ko nuyu Diouf Sarr. waaw <laughs> ndax ñu lay ñun ñëpp bu baax bi waa yeewu leen mais parce que dañu xam ne moo ñu sauvé waaw ñun d'accord nañ dama dama xam non yow tam. yow dañ lay vacciner man tey ñi nga xamante ne bu ma. man moom ñi nga xam ne tey bu ma feebaree. non parce que en fait man personnellement. après tu es xamante ne boo amul vaccin amoo protection. donc vaccin day am effet secondaire. comme vaccin yëpp comme médicament yëpp si àdduna bi. am na effet secondaire yi d'une personne à un am na ñoo xam ne dañuy vacciner wu jug dem am na ñu mën a am fièvre. am na ñu mën a am bouton c'est na bu ma ah feebaree ñi may dem. dama leen wóolu ces mêmes médecins ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi ah, man dama gëm ni bu vaccin yi amoon lu ñuy rey professeur Bousso da koy wax bu amoon lu ñuy rey professeur Seydi da koy wax bu amoon lu ñuy rey leneen ak leen keneen ak keneen da ko man dama ko gëm parce que tey bu sama bopp méttee ci ñooñu laay dem quand c'est ces personnes là mm. qui reviennent nous dire vaccin bi moo ñu mën a faj man dama ko gëm dama ko gëm kan moo am ba ma waroon <laughs> mais kan moo xel. bu utiliser sa xel rek kan moo kan moo am xalaatu faat sa population. kenn mais par contre, au contraire par contre, le vaccin il soigne pas il est à prévenir. oui oui ah, comme tous les vaccins. non non comme tous les vaccins. comme tous les vaccins tey rougeole bu fi bu fi amatul. wala wala par exemple wala par exemple so nga ne paracétamol lan. suñu beneen chroniqueur bi. <laughs> yàgg nañu <laughs> fii ku bañ a vacciné bul demee boo feebaree bul demati hôpital. boo gisee tey su dalee xale benn garab yi koy wax yi ñi ngay wax vaccin yooyu ñu ñoo créé. boo gisee tey gisatoo ko vaccin yee tax donc vaccin FM mhm. euh, mooy prévenir pour nga bañ a dem chopé ji maladie bi te ñun nag on préfère prévenir que guérir. donc Diouf encore une fois ñu ngi nuyu bu baax pare nañ <laughs> ñii loxo ñii ñoo tuñ ñu. on va faire vaccination en même temps mu nekk en direct ngeen gis ne def nañ suñu vaccin wala ñu jël exemple Israël ak parce que ñoom dem nañu ba nekk euh, instant yi di déconfiné te euh, rax ci doole dañu teg benn laissez-passer vaccinal c'est-à-dire boo vacciné woo mun nga dox say soxla ak euh, laissez-passer bi nga xam ne ils ont les entraînements ils ont repris mhm. ñu kontaan nañu démb ci retrouver seen ay salle de sport ah ci seen reportage yi tu vois les enfants dire j'avais hâte de retourner à la piscine ñoom déconfiné nañu euh, dem nañu ci li nga xamante ne moom moo di laissez-passer vaccinal euh, laissez-passer vaccinal boobu nag du dara lu dul li nga xamante ni moom moo di non seulement boo defee vaccin bi euh, dañ lay jox badge bu vert badge bu vert boobu ne moom mooy wane ne may mun a mii kat vacciné wu na ba pare donc ñu jox tey badge bu vert bi mado ndax moom moo sol lu vert <laughs> bu ko ko joxee loolu mooy mado mii vacciné wu na ba pare donc comme vous le voyez là les Euh, mën nañu dem marché. mën nañu dem salle de sport. Mm-hmm. Euh, xale yi dañuy reprendre seen ay activités mën nañu jàngi sans problème. Euh, mën nañu dem piscine mën nañu dem fépp fu leen neex. parce que ñoom dañu vacciné wu ñu wax ni fi mu toll nii. 48 pour cent de la population bu Israël 4,3 euh, millions pour cent ci ñoom ñoom ñoo daal di jot a jël euh, dose vaccin bi. te ñu ciy champion ñoom. Euh, voilà ñoom ñoom ñoom ay jàmbaar lañ ci vraiment donc ñoom ñu fàttali ni ñoom ñu ngi jël fa vaccin bu Pfizer bi. Mhm. nga xamante ni ñu ngi leen koy ñu ñu ngi leen koy jox rapidement parce que ñoom ñoom dañuy demander sans arrêt parce que li ñu bëgg rek mooy ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo di population bi mën a vacciner wu ba ñëpp mën a dellu ci li nga xamante moom. continuer waat ci activités yi dindi ay couvre-feu ak yooyu ñëpp dem liggéey oui et puis ñoom bi ñu utilisé hmm? am na d'efficacité mais xoolal ñun covid couvre-feu ñun ñun ñun actuellement nii xoolal ñi nga xamante dañuy ah ñafe guddi gi lañuy la ñuy liggéey ñi nga xamante ni ñi ngi jaay guddi gi ñi nga xamante ni aussi ci ñi ngi liggéey ci euh, ñi tourisme bi surtout événementiel événementiel yeneen <laughs> ak yeneen lépp toog yooyu yëpp doublement confiné impacté na leen mais moo tax bu ñu yokkee couvre-feu bi day sonal nit ñi dana leen woy mais pourquoi pas donc nañu dem jéem xool nu ñu amee Euh, kopparu jëndaat yeneen vaccin sax bu fekkee dañ koy jënd wala ñenn ñu cotiser sa ñun sénégalais chaque sénégalais ah, def 1000 francs rek loolu duñ la dégg moom cotisation dañ cotiser <laughs> ay impact lañ ba pare bariwul ñu jàppale ko suñu président ne ko lii ñoo la ko jox pour jënd ci vaccin yi duñu ñu yoon tamit damay dama nga toog nga jékki-jékki nga xalaat ñi nga xam sénégalais bi nga xam ne loxoom jotul ginnaaw mhm. ñuy góorgóorlu d'habitude guddi guddi mais lu may lu may wax añ amatuñu ko ndax covid bi moo leen ko teg euh, dañ doon liggéey peut-être guddi gi wala fi ñu doon liggéeyee am na ñu bëri ñoo xam ne seen entreprise yi dañu dañu arrêté nit am na ñoo xam ne fay nañ ba mënatuñ fay ils ont arrêté am na ñu wàññi salaire yi ba 70 pour cent ñi 50 pour cent donc euh, ñi nga xamante ne dañu impacté dafa bëri euh, solution moom il faut ñu trouver ko ensemble comme waa Israël nii ñu def nii bu ko defee corona gaaw jóg fi jóge ci àdduna bi point covid bi ñëw na point Covid bi ci kanam tuuti rek. ñu xaar quelques minutes waaw il est 10h04. Mm. ay 10 ak yooyu lay génn. Mm. ça se voit que tu t'es bien reposé. <laughs> ça te beneen beneen bi ci côté Covid bi mooy xam na dañ naan euh, nit ñi dañuy waxee lim ñi faatu ci Covid bi. parce que c'est vrai lim ñooñu lañu lañu wax officiellement ne ñii ñooy lim bi ñi nga xam daanu faatu ci Covid bi mais ñi nga xamante ne aussi Covid bi euh, rey na leen indirectement entre guillemets. indirectement ñooñu mooy ñi nga feebar buy seen yoon nekkul ci Covid. mais dañuy dem ci hôpitaux yi duñ euh, a mën a toppatoowee ko mën a parce que ñi nga xamante ñooy gérer euh, ñi ñi nekk ci mbirum Covid beeg yooyu donc situation nañu am ay feebar yu nga xamante ne da di dem rendez régulièrement si sa médecin à moment donné les médecins pouvaient plus les recevoir. <laughs> Euh, malheureusement xam naa si ñoo xamante ne dañ si ñàkk seen bakkan. bari na ñoo xamante ne même bu dul directement. indirectement Covid bi rey na la parce que pas aller si seen rendez-vous si Covid nga gis nit ñu feebar xamante ne ni dañuy dañ koy war a prendre en charge rapidement soxla appareil respiratoire. du ko mun am mu ñàkk bakkanam donc euh, il faut vraiment qu'on trouve de vraies solutions euh, contre euh, face à cette maladie ndax sonn nañu waxuma Covid moo leen rey mais ñun ñëpp constaté nañu dëj ñu mu bëree dese ñu mu bëree ñun ñëpp ku ci direct ah, indirect boo waxal semaine bu nekk ñu ne la diw bu dul après lu ñu lay laajee lu ko daloon nag yooyu même bu fekkee du Covid indirectement dañ naan la woy mu woon hôpital pourtant may ah, naan ah. nga situation ñëpp a ngi koy donc néew boo nekk voilà. donc mieux vaut situation yu métti la situation xalaatee ñi nga xam ne ñoom seen yoon nekkul sax ci Covid bi ñu ngi ànd ak seen wér-gu-yaram xam na dañ naan pour xale yi la mais xale yi tamit de yàlla euh, Covid pour mag ñi la loolu la ñuy wax. parce que dañ naan mag ñi lay gën a sonal mais xale yi tamit de financièrement sonn nañu. mag ñi ngi jugee xale yi même bu fekkee dañuy dund de. seen dund gi li ba jaay li ci xol la jógee nañu xam ne. mais dama ne xam nañu ñi ñi ngi jugee mag ñi ngi jugee xale yi financièrement sonn nañu damay ragal seen dund gi de sax parce que day am loo gis day am ba dina yéen aal bi moom dina ko mën baal ma dama leen wax dëgg la. dëgg mag ñi de sonal mag ñi naan mag ñi. dëgg la Ndiaye ku nekkul mag rek nekk jeune rek naan ah garaawul. mag ñi lay jàpp mag ñi lay jàpp. mais damay ragal de xale yi mag ñu ëpp leen tamit ñoom ñu teel a dem. bàyyi leen fekk souci financier bàyyi leen fii ak seen souci financier mag ñi demuñu seen sax mën nañoo toog waaye gune yi souci yi ñëw jaay crédit kër xam nga yaa c'est-à-dire créditeur jeune yëpp nga wax ni dëgg la xam na moo tax nag jeunes yeeg fi ne ni ñëpp war a mën a bool amatul ay mag ñeeg ñëpp <laughs> <laughs> ñu booloo rek kay xam doo covid bii bu jeex ku ci nekk dund mag ñi dund nee na amatul mag ñi dund am seen gudd fan ak wér toog seen kër gi mën a wér ndaw ñi am lu ñu yóbbul mag ñi ndaw ñi am lu ñu mën a yóbbul mag ñi dëgg la de ñi nga wax dëgg la de xaalis amul de Ndiaye. xaalis moom amul balaa nga koy xam nga wàcc fii buntu télé bi boo génnee. problème yi ñu lay tegal sax. bu leen sori yéen seen biir rek. waa ñun bàyyi ñu solo solo. bu leen sori comme sonn nañ ba pare bu leen sori yéen seen biir rek. ñun dañoo sant nii ba toog. yow suñu ne nii bu amee jooy xol asumel sa bopp saga bañu. bul maas luus. may may may géej géej ñu bàyyi ñu sagal suñu bopp. ma ne ko ci géej jooro bu ñu sagu nag.